dañu yàgg am ay dirigeants yoo xamante ne ay ambassadeurs lañu xaw ma nu ma ko mën a tuddee mais nopp France dañu bëtu France dañu lépp France lañu. te ay africains mais mën naa leen citer c'est Abdou Diouf ak Macky Sall. Badou. bien sûr. Abdou Diouf mi Diomaye demoon euh, nuyu. ci keroog mais Abdou Diouf mi demoon Diomaye nuyu ba mu pare. Abdou Diouf mës nga dégg sunu coow li fi am le 23 mars yeeg jàppal bàyyi ba dee gi taqar naase. juuf yëkk yëkkati kàddoom wax ne Macky Sall nii wala ndaa mais finalement c'est date aux élections. mais Macky Sall bu doon examen lay def Ablaye Wade moo ko jox certificat jox ko brevet bac mais licence ak maîtrise ak doctorat Abdou Diouf ko ko jox. d'accord pour te dire que ni mu ko ni mu ko coachingee sax dafa ëpp. Mm-hmm. Abdou Diouf Macky Sall dafa gëm Abdou Diouf ci lépp jalon yu mu mës a teg lépp ci France euh, euh, euh, Abdou Diouf moko ko coaching. ay xarit lañu domam la. da ko jege ah. dem bi mu dem bala mu don safe ñu yëkëti cadeau Abdou Diouf ñëpp dégg ko muy le père de la l'ancien père de la nation di ko xamné mam la ci Sénégal ginnaaw Senghor mo fi nekkon mu jëkëti cadeau né sénégalais sénégalais yeen ñi samay dom ngeen man la Abdou Diouf sen ancien président de la république. dama leen ñaan ngeen tek ciowlu ci jaamu Bassirou Sonko kay ñu xol ben conseil mais dafa ne pat tok feulé xana tay la doog neex mu genn jël Sonko jël ki di ko nuyu jomaay ñi fi nuyu ñi ñep nuyu kersa la rek parce que jomaay peuple bi moko fal waaye ben dirigeant faluko lool nak nag na na ko di bàyyi xel bu baax ñi koy wër nii léegi di ay goutou diko diko baax baaxlu yëpp. Mm. bugguñu ko woon parce que ñi fi nekk ñi ñep intérêt France la kenn ku ci nekk bi nga paré sa mission da nga dem France te du fa Abdou Diouf da ngeen ko mësa gis ay Diourbel ak ay euh, euh, euh, Louga. mu di fa dëkk tey mën nañ ko xayma ci ay tënk. panafricain da ngay dëkk Afrique travail Afrique juddoo Afrique toog Afrique di fa lekkee di fa naane pënd bi di la kii euh, Afrique tiim la mais mënoon nekk fi di këlëng këlëng diriger ñi li nga yor yëpp réew mu jox la ko nga pare dem France tëdd fa. di lekk say hamburger ak say kër nga ba mu neex la nga nga nga nga ba mu la neexee nga jàpp ñu fële ñuy reyante sa yoon nekku ci nga bàyyi ñu comme ñu comme ku ñu lase xoolal Macky Sall ni mu génnee réew mi loolu rafet na. gaaw bi ah gaaw bi et ne man sax dama bëgg dem. moko wax parce que dafa boudé dem Maroc jënd fa kërëm mais tey ji heure bi dañ ko waroon a fekk mu tok ci dëkk bi. d'accord Sine wala Fatick. mir mhm. mi nañ ko waxta dé fi ñi ñoo wara togaat xolaat sen seen stratégie euh, de de de de de de de stratégie politique. de gouverner de gouverner pour xam ñi ngi dogo tok li leen fal du ay Abdou Diouf du ay Macky Sall c'est le peuple sénégalais ni la France te rupture bi ñu ak ñom bokku na ci plus jamais ça il faut que nous revoyons revoir suñu diggante ak France ci lan la. parce que ànd boo xamante ne depuis esclavage jàll ci li nga xamante ne la colonisation et le néocolonial képp ku fi mës a wax lu rafet suñu diggante France ak Afrique ci histoire bu nice na ma wax amul. je suis le président de la fédération africaine des descendants des tirailleurs sénégalais de l'Afrique. Afrique ma liggéey armée 37 ans xam lan la France opéré ak ñoom xam ak ñoom sur le terrain. lan mooy France. sàcc ndomb sax takk naa ko français euh, sàcc ko ci ay douze. kon nga xam ne ñun lépp la ñuy tojee. d' accord xam France ba tax ma tax ba tey dama lay interpeller jëm ci mbirum France parce que bu ñu gisee wala boog bu ñu xoolee li nga xam ne moo di reddition yeeg contrat yi naka lañ ko war a mën a xaatimaatee ba mën ci gis suñu bopp dañu gis ni dafa bëri ay contrat léonien te bu ñu nee contrat léonien rek mooy luy codé lépp loo xamante ne war na mën a indiwaat possibilité pour ñu renégocier ay contrat gay ba tey avec la France. gis nga contrat léonien. bi ma expert bi nga xamne ci walu économique tagalé dama naroon na reculer mur bi moom yàgg rek mbëkk ko tellement sama xol bi da jeex dama len ne kon kañ ñun paré gu no France parce que boudé li moy réellement contrat léonier te sénégalais xamu ñu sax lan moy contrat léon ñu bëri si ñoom xamuñu ko parce que am ci yo xamne dañ ko wara wax en wolof domi Sénégal yi nga xamne ñun ñom lañu wax wax ñu intellectuel yow ñu sol seen costume ak seen cravate ñoom xam nañ ko mais li ëpp ci sénégalais di ñu déglu c'est des gens yoo xamante ne yàlla dafa def jànguñu nasaraan mais ñu intelligent lañu ñu mbirum réew mi soxal lañu ñoom ñoo yor réew mi. mooy contrat yi ñu laxas jaan codé codé mooy contrat boo xamante ne xam nañ na yow fa nga nekk da nga fay jóge sa morom dalay lay pour ki fi ñëw liñ ko sant da koy continuer di def ñu jox la contrat boo xam ne dañ la koy signéloo mooy contrat léonien même yow soo fi jógee sa juróom-ñaari morom yi lay topp. fi lañ koy bàyyi duñ ci mën dara dañ koy verrouiller des jeux de mots avec des jeux de mots duñ koy comme li ñu euh, euh, constitution duñ ko verrouiller ba nga xamné ne kenn dootu ko mëna laalati comme duñ def boo États-Unis contrat léonin non lay xawa similaire te niñ ko defee Sénégal non lañ ko defee won Burkina non lañ ko defee Mali non lañ ko defee yeneen dëkk ñëlé nak dañu am fulla boolee léonin ak contrat déonéer ak lépp xamuñ sen yon néwu ci la ma seen bagage seen clic et seen clat dégagé leen ba paré contrat léonin système bi ko defee

ba pare ne la yow sax comme yow nawet ba nawet nga jóg ma defal la agropastoral ngay bay teen bi di ñëw di la roosel ngay fay nga yuuxuwaat mu bindaat njëgu teen ba teg na ko fële de mu daal di indi te tool boo xam ne yow yaa ko moom ci sa biir kër de la nekk. tubaab bi moom yoonam nekk gu ci bu la joxee tool bi ba pare ba pare lebalaat la jiw ëlbatiku jël say doom yi nekk ci kër gi ne leen nañu bay ci tool bi say doom bu ñu bayee ba pare. ñu jël récolte bi moom jaay ko ba pare fay la ci jël bénéfice am ëlbati ko lebalaat la loo xamante ne wóor na ko ne balaa tool bee di ñoraat yow dootoo ko mën a fay. lii la France di dundee ak ñun. mooy contrat léonnière bi nga xam ne bu ñu ko signé ba jox la ko dara mun la ñun franc CFA mënaguñoo tàggoog moom. voilà foofu laa bëggoon ñëw ñëw pour ñu jeexal parce que bu fekkee yii mooy am ay ndëgg sërëx. ba tax na entreprise yi nga xamante ne français yi installé nañ ko fii au Sénégal ba pare bénéfice wala boog intérêt yi di delluwaat ci seen réew est-ce que aussi dina yomb pour ñu am euh, souveraineté monétaire parce que buñ ko mën a am je pense ci condition yi nga xamante ne dañu laxasoo ba tey ak France. non France ñun mënaguñu génn nañ moom noonu parce que dafa am lu ñu lié loo xam ne ci wàllu contrat te dafa am link ak yi nga xam ne mooy banque mondiale ak union européenne. ci naka. mais ñun suñu xaalis français CFA la nekk France moo ñu ko garanti tey boo jëloon 1 million wala di dix millions yóbbu ko Paris mais banque boko jox du la mais Guèye bu fekkee am nañ or am lépp lo xamante ne mën na garantie franc CFA te ñu waxon ko defoon ko ben promesse électorale te ba tay peut-être gis na ni sax duñu ñu bokkatul ci luñuy aborder souvent ci jëm ci walum souveraineté monétaire est-ce que tamit euh, amul recul wala ben négandiku bo xamante ne mën na tax sax yoon bi ñu bëgg dem duñ fa dem. France depuis ni le mës dundé si sous France dara amu fa point suuf bi gën nul bu gën pauvre France à part fleur ak fromage amul dara xam nga 1945 après la seconde guerre mondiale Non chocolat ah, non chocolat fii la koy jëlee le le le chocolat bi du jóge di le voyez. France amul chocolat après le chocolat. ko 1945 après la seconde guerre mondiale France dafa nekk dëkk bi gënoon pauvre de ndóol ci àdduna bi Le président général de Gaulle il di ne tout pour monopoliser africain pour téye ci lañu ñu ben monnaie coloniale. Mhm. muy le franc CFA. Mhm. ñu créé sen ñetti banque mo ñu tënk ba tay mo ñu tënk le banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest BCEAO bi nga xamné Ouattara président Côte d'Ivoire bi nekkoon na ci secrétaire général. Mhm. gouverneur du BCEAO mu créé waat banque centrale des états de l'Afrique centrale bi ne ci dig bi dem nag kaw banque centrale des états du Comore muy trois banques. ben bu ci nek ki nga xamné moy gouverneur bi ñom ñoo nommé ñoom France dem chamalière si nous dëkk à France créé fa de defar monnaie yeeg yëpp léegi dans doon dundee li nga c'est une PIB France 35 PIB de France ci dëkku Afrique sous région yi. Hmm. pour dire que ñun dañ ñu yàpp bande bi nga xam ne bande bi nga xam ne lay limal Mauritanie Maroc. Hmm. Algérie Tunisie pourtant dëkk yii yëpp ay colonies françaises mais xool cër bi ñu le respect bi len jox gisoo ci kenn ko ne nga ko wax français fa wala ay compte d'opération wala dañu am autonomie ci seen yef am Nous, am fayda Afrique noire nous, la France japp comme noy neex te ñun ñoko nangu par la complicité des négriers yo yoo France, nous ay nit ñu ñul dirigeants yo xam dañuy nangu soumettre lu France bëgg ñu bëgg ko lu France bañ ñu bañ ko ñun France dégage. mais dañu wax lepp lo nous France am na ko fi nañu tok ba xam lan lañ ci gagné gars bi nga ku mel ne Macky Sall dafa xam ne ans ko dese mu jël ay contrat léonien entreprise français yu mag yi fi nekkoon yëpp mu gën leen ko renforcer ku mel ne ay Orange fu mel ne ay. Total hein? Total. Total fu mel ne bëri nañu ay LL. Socosim Socosim yooyu yëpp. Eiffage euh, Mimran Crémier léegi nag entreprise yooyu dañuy amaat ay sous entreprise ay entreprise sénégalaises yoo xam ñoom ñoo ko créé financé waa ji ay sénégalais yor ko su tutelu këyitu Sénégal nekk ay sénégalais mais France moo leen coaching bu ñu paree bu ñu liggéeyee ba pare ñu jël bénéfice jox leen ci au minimum pour cent wala 10 pour cent gën gaa bëri la ca ñoom ñu jël ko yóbbu France seen banque France. d' accord mais avec euh, pour jeexal sama dernière question contexte yi nga wax yëpp lañ ci lañ ci est ce que pour ñëwaat suñu ay euh, sujet général bi waroon na. nangu lini mel. mais waru nangu. waru ko nangu c'est mon ami c'est mon frère. ak contexte bi. te dama ko bëgg top ndax nit bu fekke ne bërëb ba nga nek la nga am yëpp ci teraanga fanko amé ko lepp lu ko laale day metti ci xol man dama bëgg euh, para dama bëgg armée dama fonk armée ndax man ba mu juddoo ba li ma toll nii lu ma am armée ma ko may li may dundalee sama njaboot nii armée la man sama rew servir sama dund de 18 ans jusqu'à 58 ans génnuma armée donc lu la armée est l'armée laal l'armée, armée moy moy rew armée moy xolu rew bu rew moy dund armée moy xol ba lolu lepp lu ci day vraiment mon général ñun respecté nañ ko trop sama xarit la mais li tey man bu doon man la duma ko jël te parce que contexte bañ ko esprit de division lay indi esprit de esprit de esprit de manque de confiance vis-à-vis de nos dirigeants parce que vous ko koy jox ministre des forces armées parce que Birame Diop mi gis jaaruñu ci mom jaaruñu président est-ce que jaar nañu le premier ministre Qu'il reste à voir ñoo taf ak naxas déjà le président Macron Micron Micron parce que la dara déjà extrême droite bi bu ñu ñëwé dañ ko fiy jëlé parce que ci l'histoire de France moy dirigeant bi nga xamante mo gëna bon ci politique France parce que bi mu dugg see déjà lepp lu France do neub ci wala diplomatie mom da ko fessel yak ko complètement légui France dafa perte en Afrique ba nga xamante Sénégal moko ko dese ci Guinée Conakry ak Côte d'Ivoire sen bakkan nak lañ ci teg ñun suñu force moy président Diomaye fan la wara jaar ba su nos parents du Sahel regroupé ñu doon benn dëkk benn say ut suñu franc di xëccandoo di dóorandoo dèjà bi mu loolu amee ba léegi réseaux sociaux yi suñu mbokk yi ñu wër yépp ñun lañ def comme noonu ñi ngi xas ñi ngi wax traître ñi ngi euh, dóor te bokkuñu ay contexte yi ñu jëlee réew mi mm-hmm. ñun suñu dëkk démocratiquement la ñuy fale ñoom xëy na ay putschistes lañu mais putsch boobu dafa am putsch yu valet France yu fi nekkoon sonal population bi moo tax militaires yi jël seeni responsabilité jël réew ma bu dee putsch day mel ne bu bu Mali ñun d'accord nañu bu dee putsch day mel ne euh, euh, euh, euh Ibrahima Traoré bu Niger d'accord nañu bu dee dafa mel bu Burkina d'accord nañu bu dee keneen ki d'accord nañu même boy bi nek nga xam ñom ñoko fa tegoon sen valé la ciap commencé na bëgg rejoindre style bi Burkina démb dégg naa ñu nan Mali dañu découvrir des milliers de billets de banque nous jël ko tour ko président thème spécial France esprit de division mm. en 1958 avant ñu jël suñu indépendance même schéma même synthèse la France di dund histoire mm. ku bëgg dégg kan France da ngay déglu discours Cheikh Touré wala Patrice Thomas Sankara wala ku euh, euh, euh, Modibo wala sax nga ku mais France dafa am Pa Senghor yal na ko yàlla seral ay yeexam France la ñoo ca suufam yëpp France la ay ministre am sax Senghor ay français lañ ci toujours la dame France ñu jeexalee madame la France mi nga xam ne mooy <laughs> jigéen ju ñu fatt mhm. bëgg jël monsieur l'Afrique sonal ko léegi nak sëtu monsieur Afrique nee na bala may dee ñu nan dañuy créer Demba et Dupont Demba a toujours un hein, euh, euh, sauvé Dupont mais Dupont n'est pas reconnaissant Dupont est mauvais. pour nous merci beaucoup yan kàddu ngay